gannaaw ba nguuru France dellowee réew Sénégal xeeju El Hadj Omar Tall jaasi nitu yàlla gi dugg na léegi ci moomeelu réewu Sénégal mu di mbir boo xam ne askan bi rafetlu nañu ko bu baax a baax. Cheikh Omar Foutiyou Tall dafa nekk jàmbaar joo xam ni dafa yoroon jaasam di xeexal lislaam sa ku ci nekk ak yàlla ni mu ni mu tërala say mbir am na ñoo xam ne dañoo jug jihaat am ñoo xam ne ci kurus lañu lañu lañu la ñu yoroon di ci di ci liggéeyal yàlla am ñoo xam dañu doon dugg xalwa mais moom dafa yoroon jaasi lislaam jug di jihaat ngir yàlla ak yonent bi yàlla dogal ba pare mu am baatin bari na fi ay sëriñ yu bari yoo xam ne Cheikh Omar moo ñaanal seen waajuru jigéen ba ñoo ñu gañ àdduna nekk ay borom jamono kon Cheikh ñun dañ ko soxla soxla ay œuvre mais yàlla moo dogal tey jii ay ay ay jaaseem ak ay ay objet nekkoon ci tubaab yi du dëgg ba yàlla indiwaat ko ci ñun sant yàlla. waaw dañ koy rafetlu lu nañ ko bu baax a baax. suñu xol it sedd na ci guy waaw suñu xol sedd na ndax Alaaji Omar moom wàllu kaamil la wàllu kaamil la lislaam xeexal na lislaam ba lislaam àgg fi mu àgg waaw ñun lool moom dañ koy rafetlu lool sax te ci gërëm mag Macky Sall mi ci def ak moom France yëpp nag suñu xol sedd na ci guy waaw yal na ko yàlla sàmm njabootam gi mu fi bàyyi yëpp nag. bi ma ko seetaanee kontaan laa ci am ak it yëg ci sama bopp daal te it même ni ma ci amee yëg-yëg jàpp naa ne jullit yi. même bu dul jullit même chrétien yëpp képp koo xam ne doomu Sénégal la nga rek war nga a kontaan ndax ndam la daal dafa mel ne lu réeroon la ñu doon ko seet mu dem ba feeñ daal kon loolu ndam la ndam la ci Sénégal yëpp man maa ngi ci yëg sama bopp ni ko famille bi yëgee noonu laa ko yëgee daal maam di ci am fierté daal. dañ ciy sant yàlla ndax Sénégal ku nekk xam ne mag ñu baax ñu fi jaaroon ak seeni jaar-jaar àdduna bépp ràññee ko. ñu ay bañkat bañoon ku noote Sénégal ñu nekkoon nit ñoo xam ne nii dañoo amoon fierté Sénégal yàgg a dund ci Sénégal lépp lu ñu am Sénégal leen ko gënal kon bu li amee ñun ñëpp ci war a sant yàlla ñu julli ñëpp ci war a sant yàlla ndax ki demoon xare ba bàyyi woon ko fa ñu wëlbati ko delloowaat la ko kon gis nañ ci yow loo xam ne nii li tax ñu delloo la ko ñoom ñoo ko xam. kooku dafa liggéey liggéeyalul rek Sénégal monde bi la liggéeyal amul fu mu demul te lim fi fekkoon ci ayam ñi nga xamante ne ñooy ay tuuban lañu woon dañoo bari mais daf leen wëlbati dugal leen ci yàlla suñu borom dugal leen ci lislaam xeex diine lislaam mu taxaw daal di xeex tarixa tijaan mu kawe. kon ku mel noonu bu ñu gisee benn objet ñu teg ko fenn foo xamante ne ña koy ña koy yitewoo ay nasaraan la ñu ñu xamul valeur am dañ ko ne coppet indi ko suñu réew. naam sax tubaab bi jébbal nañu jaasi élage Hadj Omar ni ki démb ca pale de la république askan bi ñu dajeel nag jàpp nañu ni li xewoon démb ca pale moo jéege gu njëkk bi tax ba ñu rawale si bépp jumtukaay bu réewu France téye woon. léegi nag comme yàlla dimbal nañu ba jaasi ñëw na yenn kii man gis naa ko jaxaran léegi nag yàlla na yàlla dogal ba yeneen yi ak yeneen kilifa diine yëpp wax dëgg fa yàlla lépp ñëw tas parce que boo dee xool tey jii taaw Seydi Hadji Malick ñu ngi ko ñu ngi ko suul Grèce il paraît que ak taaw Maam Serap fa lañ leen suul xam nga kon tey jii bëri na ay ndamu ndamu ndamu Afrique yoo xam tey jii ñu ngi bitim réew muy ay xewul ci ñoom te xéwal yooyu war na dem ba ba ba ñibbisi fii suñu réew xam nga xëy na nag lu jot yomb mais xëy na comme lii moo jot ah yomb na yàlla na yàlla def yeneen yu yomb ba lépp ñu bis Sénégal daal. président jàppale ñu ci jàppale bu baax a baax ndax bu dee bu nekkee France France du ñu xam njëriñ li te ñi ngi ko jëlee fii ci ci Sénégal seen i sët ñi ngi fi seen i doom ñi ngi fi kon buñ ñu ko indilee fii ñun ñun dinañ ko mën di siyaar ndax ñun danañ dañuy xam valeur bi tubaab nag du xam valeur bi moom histoire bi rek lay xam waaw nañ nañ ci président lu mu ci mën a def daal jàpp ci ba mu ñëw daal waaw na ko na def bu soobee yàlla su boobaa ndam rek la ciy am ndax ndax képp njaboot gu dimbali rek njaboot googu danañ danañ seen xol dana sedd te te danañ danañ ci jàpp baax a baax daal. gëm naa ne porte ubbeeku na parce que li indi lii mën na dem indi leneen lu dul lii parce que li indi lii kenn foofu ko woon bu fekkoon xel xalaat na ko it yaakaaruñu woon dina am ndax xel li muy xalaat bëri na waaye pour xalaat ko mu am moo yombul kon xel xel xalaatoon na loolu rek demaat ba gis ne loolu am na rek kon am nañ yaakaar ne yeneen yu wow yu mel ne yu nekk foofu ñi am yaakaar ne dina ñëw te bii ñëw du ànd ak coono du day ñëw comme bànneex nii. ndax dëgg mooy njëkk mooy mu ala kulli aal la nekk foofu ala kulli aal day ñëwaat fii parce que sunu moomeel la ndax adduna bépp taxaw nan xam ne benn réew rek ci Afrique mooy réew bi nga xam ne nii mooy réew bi gën a mën a jaamu yàlla mooy Sénégal kon nag dèjà dafa war lu ñu moomoon rek ci pays yëpp ñu delloo ñu ko. nañu Macky Sall dimbal daal la fa des mu indil ñu ko parce que kooku jàmbaaru islam la boo xamante ne bu ñu amaatoon ku mel ni moom. ah lu bëri dana changé Sénégal ndax dafa taxawal diine lislaam ba mu taxaw taxawal tarixa tijaaniya ba mu rëy kon kooku dañ ko war a jël indi ko suñu wet. ci fàttali démb ci ngoon ci la ilimaanu jëwriñ bu France Édouard Philippe jëbbal président de la république bu Sénégal Macky sàll xeeju El Hadj Omar ci teewaayu kilifa diine yu bëri ku ci mel ni xalif général di Tijaan Serigne Babacar Sy Mansour ak njabootu El Hadj Omar gi yépp